xamante ne maa toog sama kër di xaar journal vingt heures mm. jot serviroo ma journal boobu noonu amal nga may explication te tu as à me rendre mm-hmm. comme ni ma ko waxee léegi Pape Alé Niang nekk koo xamante ni day xof wala day dellu ginnaaw loolu lañ ko xamee mm-hmm. donc na dem jusqu'au bout de sa logique te dama koy gën a conforter mm-hmm. di ko wax que le peuple est derrière lui peuple bi nga xamante ni moo falu Bassirou Diomaye fay de le premier tour à cinquante quatre pour cent ñu fal leen nag ci moment boo xamante ne Bassirou dafa métti woon am ay sénégalais yu ñu ñàkk seen bakkan am ay sénégalais yoo xamante ni tëj nañ leen ci kaso comme ni ma ko waxee ce matin mm-hmm. ñooñu ñëpp lan la ñuy demander changement révolution moo am Sénégal mm-hmm. te gis nga révolution boobu nekkul rek au niveau yu palais la war a am mm-hmm. direction yëpp dañ ko war a sentir parce que nag RTS dañ lay wax ay sama baay fii la liggéeyee woon comme hiérarchie waaw voilà yow booy retraité sa doom mooy ñëw remplacer la yooyu moo fa amoon ay nit yoo xamante ni Racine Talla bu daan dox yow da ngay yor sa morceau di ko fompal ay dàllam di ko ubbil oto bi te cartable am Papa Alé Niang ñëw def rupture mënut a neex nag mënut a neex ñëpp mënut a neex ñëpp mais qui ne cherche pas à plaire. te ñun xam nañ ko xam nañ état d'esprit moom. Mm. moo tax si début ma ne la quelqu'un ko boo xam ne quelqu'un la boo xam ne mm. on le respecte si milieu bi. te tey jii biñ ko falee ma loolu laa ko waxoon. Mm. am nga fulla bi am nga fayda bi am nga euh, posture mais am nga poigne bi te tey poigne boobu noonu moom lañu soxla ci lii.

kopparam gu bi am otom bu mu dawal 100 millions dem sax bu naa xajul ci fi ñu koy dugal ak tout ça tey les discours yi am noonu ci RTS employé yi dañu porté plainte parce que dafa dagg seen indemnité ba jàng nga ci am. waaw ndax Pape dafay am salaire bu cinq million oto bu 100 millions. Hmm. macha allah yàlla na yàlla xeb dool yi. Euh, man dama gëm ne. Hmm. gis nga nit Pape bu xëy këram nelaw ba yeewu même ku dul Pape Alé ah mën doon même muy Babacar wala Bachir. Hmm. sangu hmm. solo yii yéreem fas yéene liggéey hmm. kooku loo ko fay jar na ko mérito na ko loo ko fay mérito na ko absolument maanaam nit kuy liggéey moom te li muy liggéey li ñu ko jox nii mu mën ko di ko liggéey di ko jaara ci yoon kooku lu gafaxa gi mën a gàddu rek ñu mën ko ko fay jar na ko maanaam salaire bi amul solo mais li am solo mooy ndax papaale kam fa wutu salaire boobu la doon am wala déet cinq dafa ñëw yokk ay privilèges am hmm. wala moom loolu la fa fekk non loolu fekk moom poste bi mu géré maanaam ki ko doon gérer muy directeur général bu RTS salaire boobu la fa fekk wala déet. bu fekkee loolu la fa fekk. Hmm. je pense que loolu y' a pas de débat. du débat wax ji mooy ñoom. Hmm. ñoom ci seen jëm bopp ñoom nangu nañ ne Racine Talla bi mu ko wóoree na ko juróomi fan moo fi des Macky Sall génn pale te moom leer na ko ne jumaay du dugg palais di fa des moom muy wëy di xëy di dugg otoom di dem RTS booba la leen signaler lu nu mel. defal leen privilège yi. kon moom xam na ne lii nekkul loo xamante ni. Hmm. lu fi nekkoon la. 200 du lu ndaw quand même. gis nga ce régime là. Hmm. yéen kii nga waxu big bi sànq. maanaam mbir mi du RTS kese. RTS dafa bokk ci secteur yu ñu laal. Hmm. maanaam dafa ponk ba bëri foo xamante ni foo dem rek xool nañ ay dégg yu ñu fa mën a teg. pour hmm. ki fay ñëw bu ñëwee bu dëggee tànkam dégg jam ko. maanaam ay ndëgg si yoo xam ne ñu tegoon la parce que euh, ñu ngi doon xool naka la ñu mën a fexee ba bu ñu demee it ñi nga xam ne ñoo fi ñëw nan la ñu mën a créer ay situation yoo xamante ni. ñoom leer na leen ne ñii ñu fi ñëwee dañ ciy bëgg a ñëwaat. Mm-hmm. mais bu ñu ci ñëwaatee eh, dinañ laal intérêt ñoo xamante ni dinañ riposté. Mm-hmm. maanaam ñu jéem a jaxase leen ak askan wi. Mm-hmm. pour ma loolu moo nekkoon seen objectif. Eh, lu mel ni ministre yi Macky def fi 12 ans. dem ba fi waaye jógee mu ne dafay élargir liste ñi nga xam ne ñoo war a bénéficier wu passeport diplomatique. Macky Sall ñëw ci réew réewum Sénégal en 2012. nekk président de la République. ancien chef d' état de l République waroon am salaire am dem France mu woy Mhm. salaire am kooku di dem di jël retraite di fi bëgg a bàyyi salaire ñoo xam ne ay ancien ministre la ñooy ancien ambassadeur yu ni mel kooku yow leer na la ne moom xam na ne li muy def nii teg ko ci yoon teg ko ci dëgg te amul benn euh, euh, responsabilité boo xam ne amoon na ko ci maanaam benn wekk askan wi ci boppam sax defu ko mhm. xam na ne da nga ci ñëwaat mais moom il s'en fout quoi li mu bëgg rek mooy loo xam ne boo ñëwee yow boo ko laalee mhm. peut-être ñi ngay jàkkaarlool bu ñu amul patriotisme ak am recul dañu xool seen intérêt rek ñu jàmmaarloo ak yow mu créer la problème. Mhm. barki dem yaa ngi gis le ministre euh, Cheikh Tidiane Dièye fee ci DGTV. Mhm. lu ma a cinq jours su ma jumal aussi avant muy départ moom président Macky Sall signé na contrat bu quatre cent cinquante neuf mhm. milliards seulement oui benn usine bu waroon ci géej gi. waaw. signé na ko fi le euh, le ministre nee na lu ñu mel dañ ko teg ci suuf dañ ci dellu. daf ko annulé peut être peut être euh, daf ko annulé mais bon peut être aussi le contrat on on peut on peut renégocier ça. d' accord peut être on d' bëgg naa taxaw ci RTS yow kay. Hmm. tey gis naan nga baal ma ma dagg la foofu. dama bëgg taxaw ci RTS voilà. gis naan que ni Euh, euh, journal vingt heures. Ah. ça fait plus de cinq ans musul musul musul bon li passé lépp ah musul musul musul ñàkk am RTS. li ñu ak tey ñu xëy ñu journal du am bu fekkee tey mm, acte bu ñu def naturellement la maanaam pour saboter tey lan moo war a nekk taxawaayu moom DG bi war a sanctionner wala il doit négocier pour devoir la manière dont marche la la boîte. waaw li njëkk mooy ndax problème technique la wala sabotage. parce que man ci page RTS laa ko liiree juste bi ñu ko publier rek. non ñoom problème technique la ñu problème mais la coïncidence wax. waaw waaw la la coïncidence mhm. mën nañu ci taxaw. Mhm. Euh, te peut-être s'il le faut. Mhm. bu fekkente ne kii di DG Pape Alé jàpp na ne lu mel. coïncidence bi daal jar na taxaw seetlu. mën na demander à ce que ñu ubbi enquête. mën a saisir les autres compétents ñu ubbi enquête ñu xool lan moo waral lu nu mel hmm. fekkente ne problème technique la bu naturel rek hmm. parce que day am sànq yaa ngi gis li nga xam ne moo ñu dal fii nii voilà bu fekkee lu nu mel la ñu xam ne lu demee hmm. bu fekkente ne nag dafa am sabotage boo xam ne moo ci am après mu jël toutes ses responsabilités ak ñi nga xam ne ñoo def sabotage bu nu mel c'est aussi simple que ça vous vous sa posture ni mu demee nii faaw mu jaar ci ay mbir yoo xam ne yu metti lay nekk parce que dina am benn euh, benn gàllankoor bu am ci moom li ma bëgg a wax peut-être que comprendre nga ko maanaam dina am ñu faire face ak moom ci ETS parce li mu bëgg a dagg ni gars yi nanguñu ko te yow da ngay approuvé dafa war a foncer dem comme ni ko Salma waxee bañ a am dara lu muy ragal lu muy tiit wala mu négocier sur une table gis nga Pape Alé il y a de mois rek hmm. nekkoon na situation yu difficile ça c'est il y a de cela quelques mois. Mm. Pabal jàpp am nañu ay mbokkam am mën naa wax ne demoon nañ ba ñàkk yaakaar ci moom. bi mu nekk prison nekk ci grève de la fin nekkoon na ci lu méttee métti. ku ko noonu ay weer rek boo ko dundaatee parce que moom sax damay faral di dégg mu koy wax ne dafa am góor gu ko seet mu ni ko boo guddee fan di nga génn. Mm. léegi moom ku ko noon nag bu ay weer rek nga ci teg nga nekk directeur général bu télévision national mm. boobu moom dana la déedéet xamu ci dara. mais gis nga yàlla. moo yor nguur te di ko joxe. sirru la. nit faaw nga am gëm yàlla gu mat sëkk li ngay def nga seet yàlla. Mhm. bu ci seet lu neex nit bu ci seet lu neex kenn. Mhm. seet ci yàlla bu fekkente ne li ngay def nii seet nga ci yàlla yow boo tëddee sa njëgënaay doo am dara loo xam ne dina nekk di la sonnal di la tere nelaw ngay xalaat mu wóor la ne li ngay def du dëgg du yoon. Mhm. amul lenn loo ciy ragal. xoolal li ngay def seet yàlla après le reste nga bàyyi nit ñi ak seen i commentaire mm-hmm. fonceel ci li ngay def Pape Alé amul dara loo xam ne war na nekk di ko calculer wala yu mel mm-hmm. li ko war mooy RTS dafa nekk télé boo xam ne den ba Sénégal daanaka bu ñu ko seetaanee Coupe d'Afrique mu am wala yu nu mel match am ñu koy seetaan mm-hmm. mu yow muy man muy keneen absolument voilà léegi nag moom dañ koy jox pour mu defeer gis nga nag nit bu ñu la joxee pour nga defeer munoo wax ba satisfaire ñëpp di nga am ñoo xam ne da ngay def seen mm-hmm. intérêt moo fa nekkoon te tegu ci yoon nga bëgg ko jubbanti mm-hmm. du leen neex dinañu jóg jéem a taxaw mm-hmm. mais yow yaay xam ne da ngaa nekk ci dëgg da ngaa bëgg a nekk di defeer xëy na ñooñu mën nañu dem sax ba dellu si xam ne ñoom ñii kat li ñu nekkoon moo nekkul woon dëgg mu nekkul woon yoon ñu dellu si mais yow bul bul xool état d'âme wala yu mel xoolal li ngay def ndax mooy li nekk ci intérêt askan wi ndax mooy nekk ci intérêt boîte bi nga dénk nga dem ci droit bi amul benn calcul boo xam ne war nga ci def wala recul ndax bu fekkoon ne calcul la di di di di nekk ci ay lu neex ne yu mel. ñii nii duñ fi jógee quoi. d' accord Babacar jërëjëf alors Salma. Mhm. Euh, dernier ponk bi ñëwal RTS gis nañ que ni vague de journalistes yi bëgg a dem jamono ji bari na bon naan damay dem ñi naan dew ma recrutement RTS nu muy demee tout ça ñi ni RTS ña fa nekk dañoo xaw ngeen baal ma dañoo siis ci ña fay ñëw ñu faa liggéey <laughs> tey kan ma war a liggéey RTS ak yow sa xalaat boobu Pape Alé yi ci ban cadre